billahi min aseytaan rajim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh yéen bokki taalibe yi bokki jullit yi ak bokki taalibe yi man Mouhamadou Mamoune Diongo maa leen di nuyu di leen siyaare yéen ñépp fas yéene def fi tey ay bandi barsan barsan ji bi nga xam ne Serigne Moussa Ka moo ko taalif nu fas yéene koo defal nag ñu fas yéene ko def fii tey ci studio xippi di ko defal suñu mbokkum taalibe Serigne Moustapha Fall murid Sadiq ca Colobane noonu ko fas yéene nag ñaan liggéey bi képp ku ko dégg ku ne yàlla na Serigne Touba boole faj suñu aajo noo ngi ci ñaan suñu borom defal ci ndimbalal àddina ak àllaaxira ci barkib Serigne Saliou Mbacké band yooyu nag képp koo xam ne yàlla dogal na liggéey bi noppi ba ngay itteewoo ko na nga dem laaj ku na nga dem Colobane ca kër Murid Saadix Moustapha Fall boo fa demee band ya dana fa am parce que nañ ci yéene jàng barsan yépp ba mu jeex ay ay kaset kaset lay nekk ca foofee nag numéro téléphone am moom Moustapha Fall moomee nga xam ne mooy ki ko moo ki ko liggéeylu mooy 22 73 49 ca Colobane su fekkee yàlla dogal na it nga nekk fi Touba boo ko fa yitteewoo na nga dem fo ca ca marché ca marché Ocass foofee toll ak marché ganaar ba fa ñu jaay ganaar ya boo demee na nga fa laajte ku ñu la wax Serigne Dame Gaye kookee moo fa nekkal Serigne Moustapha Fall mi nga xam ne moo mooy ki reproduire cassette yi lu ci waay soxla rek bu soobee yàlla yonent bi ak Serigne Touba da nga ko am noo ngi koy noo ngi ñaan yàlla barkeel liggéey bi te faj suñu aju yëpp barke borom Touba bismillahi yasimi sani yàllaaw xadib tadaatu bi nasmi dure yàllaaw bismillah yasimi sani yàllaaw xadib tadaatu bi nasmi dure yàllaaw dure ni diw judoodal mustafa wa umo rawa mawlidaw muxtaara yàllaaw xifooli maqi rasulillahi wastamioo waan sidoo yaa mala li naqi yàllaaw jóg leen taxaw déglu lii may wax moom madana min mawlidil harabil man soore yàllaaw mawlid ya gaaye weser laay way piri wolofal ndax yenn jaayil ya xam mën naa yàllaaw damay xamal gaay yi daa mawlid lu daw nu sawar ndax yàlla fuñ toll naa yàllaaw yàllaaw manoon na maa way yaaram waaye kon bu xamul xam ci lu tax tagg yonnem war mu yàllaaw xam yàlla xam fa mu teg yonnem ba war nakku ne ku leen xamul yàlla bun xam kooka yàllaaw danaa fooy turi maamam ma xawaariqiim ak mu gisaat yu mu daa def booba yàllaaw min fay di bahil manaawi yaa mu diimu lana xarabtu saa nasma fil man soore yàllaaw wal mawul dul duri wal bariyu laa jëkka way booleeg manaawiyu wal bar san ji yàllaaw ñi daan naay xise yi ñëw fii te fee du fa ñëw moo tax ma boolaate seen mawlid ya yàllaaw muhammadun xayru xalxilaayi fii abadin yàllaawu salli xale yi dahra yàllaaw muhammadun xayru xalqilaayi fi abadin yallaahu salli alayhi dahra yallaahu lawlaahu maa kaana mulkulaayi muntasiman duniyaan wa uxuran min al asmaani yallaahu xad kaana nuuran wala lawhun wala qalamun wala samaaun maa al amlaaki yallaahu wala jinaanun wala naaru jaymi wala arsun wa fursun mahal anhaari yàllaaw wala nujuumun wala samsun wala xamarun wala saabun mahal amtaari yàllaaw wala jibaalun wala barun wala sajarun wala riyaawun jarat fii sayli yàllaaw wala dawaabun wala insun wala malakun wala jinn wal wansu wal ahjaaru yàllaaw fal kullu min nuurihi rahmaan aw jadahu lawlaahu maa kaanatil afaabu yàllaaw musjaanal mustafaa baana amaanu lanaa wal kaa'inaatu min al anwaari yàllaaw يا مولد المصطفى هيا جميجتنا أسقيتنا منه يوم منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا قسوت ناقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا قسوتنا قدة الأنوار يا الله يا رب أفضل بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في دارين يا الله واكرم ندر يا المصطفى كرما دهرا بعرف سسيم منك يا الله وصل يا النبي تسليم هل به وروي روحبي ريان يا الله لما أراد إلهنا مالكنا تكوين نور رسول الله يا الله خلق دوام فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله من ليرك محمد ما لبن رنجام قوي سبال يا الله ñananti wa nga aslam dendam ba moo gën a yaa téeméeri hadina cay seddam gayalaaw mu bind leer ga ci kiiraayal wurus la ko def melaw njanaaw la misaaloo foofa yalaaw sabaal na foofee juróom-ñaar fukki junni bi at ca kaw garab ga bi isnillaahi yalaaw bur yàlla jox ko fa mir aatul hayaa i mu yor ba leer ga seetoo ba gis boppam fa yalaaw baatin ba daldi sujjóot ngir ker sa dellu taxaw juróomu yoon ñu dugal fa julli yàllaaw juróomi julli moo tax deesu leen mën a ba ngir moom la jëkka liggéey looru ga yàllaaw mi nuuri rabil waraa anwaaroo kulli xat xablal xalaa'iqi fil mariyi yàllaaw anwaaru asabihi من نوري قلقت والانبياء وجميع رسل الله ليرم جامونا ليرك ربه دكور لمر بخمسين ألف هام يا الله ليرم جامونا ليرك ربه دكور لمر بخمسين ألف هام يا الله بري الله دال ديغل leer yooyu yépp ñu wër ngir jaamu leer ak rasulullahi yàllaw taafo wa taafoo bismillaahi ñëpp nga naa subaana xaaliqu haza nuur yi yàllaaw ñii wër di wër alfu alful haami mbaalu ko ful bilamdi wa shukri wa tasbihi yàllaaw bu yàlla xool leer ga muy lox far ba ñaq ba sab di toq toqi hayaa an minu yàllaaw ñenantu toqi ne jiitooy Baabakar Omar Usmaan summa haliyun wóor na yàllaaw bur dellu bindaat ca toqin yooye woon jalasal malaaka yaat harasa kursi yàllaw waalan bi yaa wa jamiir si wal kurama walawi wal xalamil mahfoosi yàllaw bur yàlla naa xalimam googe bindal ma ci kun maa kaanu aw sayako nu dëhra yàllaw mu naa ko man ana lan laay jëkk bind bu wir yaa rabbi yaa xaaliqal asyaai yàllaw mu naa ko an laa ilaha laa sharika lahu ilal ilahu wahidan doy na yàllaw muhammadun xayru xalqilaahi fi abadin sarali ilahu xalqi yàllaw ba yàlla tuddee rasulullahi ahmadana mu ti baxar daldi sujjóot foofa yàllaw sujjóot na tiimiiraat foofee yu mat soog a jóg màggal muhammadu ak xeetam wi yàllaaw mu bind hajjana ak xéewal yu rëy ya mu yor wal hóoru wa dóoru wal wildaanu yàllaaw te bind jaanama ak tàngoor wu rëy wa mu yor ak tiisaa giid ya ak jaanam ya yàllaaw yàllaa nga naa xalimam googee bindal duma far markeer mu ummatu ul hasmi yàllaw neenu maatul mustafa ñooy xeetu mos ne batul yàlla di rabul xafoo runu wóor naa yàlla woo delu matul mustafa ñooy xeetu muus ni batul yaa waadira bul xafoo runu wóor naa yàlla woo ya ummatul mustafa أستم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جان فأنتم خير قوم الأنبياء وجاه مبصرا من كلا من لا غرام وأعتر النبي المصطفى كرما دهرا دارك ششير من قيلو وصلي النبي تسليم علي به ولويره بريعان الله déglul maax la fa leer ak Moustapha doxo dox caawalan soog a ñëw fiil kaw ni yàllaaw déglul ma wax la fa leer ak Moustapha doxo dox caawalan soog a ñëw fiil kaw ni yàllaaw pour yàlla bind na leer ak Moustapha te bindul fiil mulki wal malako ti dara yàllaaw leeram nga jiitoon na leen téeméeri junni ba muy téeméeri junni ba muy ay junni yàllaaw leeram nga jaamu na leeru yàlla ay miliyoŋ yu xel dajul nopp déggul foofa yàllaaw buur yàlla sakkal koy kiiraayi leer yu ko wër yu mat fukk ak yaar yu taliñ déende yàllaaw kiiraay lu nekk nekk mu sax yi jaamu ay yat yat kiiraay lu ñëw gën a tal la weesu yàllaaw mawlid ba lim lim cay kiiraay danaa la ko wax ak ture yónneen ba jaamoo foofa yàllaw hijaabu xudrati rabbina si maalikina moo hëmb leer rek rasulullahi yàllaw yónneen ba sax na fa tey wër fukki junni bi at ak ñaaru junni bi at tey tudd yàllaw mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci lamiñu kun subhaana rabbin hali sehni yàllaw bam jeexalee loole kiiraay fii ca buntu ba yoon hijaabu asmati fi noor yi yàllaaw yoon nan ba sax na fa tey dox fukki junni bi at ak benn junni bi at ngir jaamu yàllaaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci lamiñu kun subaanaali sirril kulli yàllaaw ñetteeli kiiraaya soo dégloo maax ko nga xam hijaabu minnati fi noori yàllaw foofee la jaamoo boroomam fukki junni baat yeesu léppul lii la mawlid wax fa yàllaw mawlid ba nee la fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana raafihuna yàllaw yàllaw déglul nan teeli kiiraayat kirii yaaras ak kursi yoog malakoo tilaayi yàllaw hijaabu rahmati moo yërmandeem jamu yor sax na alfati santu alaafin fa yàllaw mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ki la mi ñu kun subhaana rabbin rawkin raayimin law leer ijaabu sahaadatin asal la ja teg moo yor taxe xeetu yonen foofa yàllaw leer ak ijaabu saadaatin asal la ca teg moo tere xeetu yoon nen foofa yàllaw lu mat juróom ñetti junni hat yu mat la fa am di jaamu rabbul wara bin haale yàllaw mawlid ba ne fa daa jaamoo ci lamiñu kun zubaana man laa yasa lu dëhra yàllaw déglul hijaabu karaamaatin ma wax ko nga xam moo yor karaamay rasulullahi yàllaw yonen ba sabatu alaafin yu ma la fa am hiya di jaamu boromam wóor na yàllaw mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci lamiñu kun subhaana rabbin hakimin sàmma yàllaw hijaabu man silatin moo sax yonen ba sax na fa kem lu mat juróom benni junni at fa yàllaw hijaabu man silatin yonen basax na fa kem lu mat juróom benni junni at fa yàllaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci la miñu kun subhaana zil mulki wal amlaaki yàllaw hijaabu yonen hijaabu idaayatin asal la ca teg moo yor juba xeetu yonen foofa yàllaw yonen hijaabu hidaaya di nasal la ca teg moo yor juba xeetu yonen foofa yàllaw juróomu junni laa foofee caat yu ma xam di jaamu mu xaatu noorin har si yàllaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci làmmiñu kum subaana si la siwal kursi yi yàllaw yónne ni jaabu lu boowatin la tabbi këram mooy pey ba yor booti yónneem foofa yàllaaw ñenantu junni laaw foofee caat yu ma xam li jaamu buur yàlla leer yey jolli yàllaaw mawrit ba ne lam fa daa jaamoo ci lamiñukum subhaana wa bihamdillahi yàllaaw hijaabu rafatihi hul yaa danaa la ko wax njool ma ko xuus na ko jël xar baax ya yàllaaw yónneen ba sax na fa tey yónneen ba sax na fa ki yat ñetti junni yu mat buur yàlla yokkal ko fay maqaama yàllaaw yónneen ba sax na fa ki yat ñetti junni yu mat buur yàlla yokkal ko fay maqaama yàllaaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci làmmiñukum subhaanahu malikul xudóos yàllaaw hijaabu taaxati rabbil arsi moom la jatek mooy pii ba ruuya di toppanteer fa yàllaaw yonen ba jaamu na foofee ñaaru junni beat buur yàlla nangul ko nangul xeet wi yàllaaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci làmmiñukum subhaana rabbin xakiim daayimi laaw kibiri jaabu sabaati laa mileet biramu xeet wi ci baatin wóor na yàllaaw yonen ba sax na fa junni yat bi laay kasabin biis ni rabbil wara mahboodu yàllaaw mawlid ba nee lam fa daa jaamoo ci la miñukum subhaanahul malikul mahboodu yàllaaw kiiraayi mawlidihil bari fii la ñu yem kiiraayi xayril wara jertil fa yàllaaw وعترنا بدر المصطفى كرما دهرا بعرف سسين منك يا الله وصلي النبي تسليم علي بي ورويره بريان يا الله دول الماء وخلاقنا كيراي يا جيك يا مو بارنا من البهر فوق خلبه يا الله دقال الماء وغلا قماو كيرا يا جيك يا موهو بارن من البهر فو خلبه يا الله yónneen da xuus na ci géej géej da daa ko fil im juróom ñamant la fil bari yàlla yónneen da xuus na ci géej géej tey danaa ko fil im juróom ñamant la fil bari yàlla na leer ci kaw leer ba leer ak Moustapha ga duggee ci géej gi leer nga niilal yàlla yàlla nuuri nun xalaa nuuri من نور ينورنا لنور من نوري أنوار يا الله في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته جيان يا الله بحر الكرامة ما بحر الشقاوة ما بحر الهداية نوفيس يا الله بحر سباتي وبحر حكمتي وبهر مهرفة mooy la boy yàllaaw keroog ba njool ma ko xuusee géeji leer yi basar di wal ca moom meeli rabal har si yàllaaw bur yàlla xëy naa ku yëlbul ndox mu toqe ci yow téeméeri ju néeg ñi teg ñenante yàllaaw bur yàlla xëy naa ku yëlbul ndox mu toqe ci yow téeméeri ju néeg ñi teg ñenante yàllaaw roolaay li ma xakkadul fii leen bi yaa iya wam min alulufi wa rusulillahi yàllaaw buur dellu bindaat ca leeram googa jawaratam wa maa u bahrin wa kullil hayni yàllaaw buur dellu bindaat ca leeram googa جوارة وما أبرئ وكل العين يلاو والشمس والقمر أسنى وكوكبا مع الهواء والنور الكل يلاو والضر والأنس والياقوت كالبدا كسى السماوات والأرض ما يلاو بur yàlla dellu na cas leeram nga yóbbu aras ma sax fayat bi isnillahi yalaw waxatari nadari al mustafa karaman daran bi arjin sasin min ga yalaw wasalli an nabi taslimin halay bi warawiro bi rayaani yalaw déglul ma wax la na buur def leer ga ak fam dox ca pii yàlla ya ak ndambam ya yalaw fa bokki saayir ba ñëw leeral si aadama kat laa wax na baatim ba laa jal yàlla yàllaaw taxañ na leer ga dugal ci lamp wekkaaras zabina alfan min al ahwaani yàllaaw leeram nga sax fa juróom ñaar fukki junni bi at leeral na duniyam wa uxran booba yàllaaw bur yàlla wooru wuya ak seen leeri yu baaras ñuy jaamu leer ak rasulullahi yàllaaw wër nañ aras alfa alfin aami junni junni bi at di xooca leer ak rasulullahi yàllaaw wër nañ aras alfa alfin junni junni bi at di xooca leer ak rasulullahi yàllaaw ñaa xool ko ñaa lanka xool ñaa wër ko ñaa bañ a wër ñaa gis na leen ñaa gisul leen booba yàllaaw ku xoolutoon Moustapha boobee asal du ko gis duniyaan waaxuram te gëmtil yàlla yàllaaw ñay raw keroog la ñu raw ñay des keroog la ñu des doogal ba ji tuuna xaab lal kaw ni yàllaaw ñeel keroog la ñu raw ñey des keroog la ñu des dogal ba ji tu na xaab lal kaw ni yàlla wa ñey raw keroog la